gis nañu ne ba léegi ñu ngi jël ay gaal ñu ne dañuy dem Barça wala ñu dem Barzaq mu nekk mbir moo xam ne mbir mu raglu la waaye nag euh, responsabilité partagée la mu ngi tàmbalee ci yar bi ni nga xam ne noonu lañu ñu ndaw bi liñ ko gëmloo ak taxawaay bi nga xam ne moom la war a def ndaxte benn njuumte bi am mooy mënuma tekki lu dul damaa génn sama réew loolu xelaat bu bon bon la ndaxte day tax la doon tax réew mi baax yépp génn dal di dem feneen te luy joge ci biti boo xaaree ne loolu mooy dundal ab réew day doon ab jafe-jafe kon mbir mi la ko waral ñaari mbir la benn mbir bi mooy yarin bi buñ ko seetaatoon jubbantiwaat ko rek conseiller ko leeralal ko ay mbir muñ loo ko loolu dina baax beneen mbuñ bi nag mooy ñi nga xam ne ñoom lañu dink ay responsabilité ñu waroon a jonjoo xale yi war a taxawee xale yi war a tëral programme yoo xam ne dinañu convaincre xale yi ne ci programme yi bu ngeen toogee xaar ko fas yéene taxawu ko fas yéene farlu exécuté ko kon la ngeen di wuti da ngeen ko am fii kon leeral yooyu su amoon te mu jóge ci kaddu yoo xam ne kaddu yu dëggu lay doon mu jóge koo xam ne dañ koy wóolu jàpp ko kon jàpp naa ne benn xale du dugg ci ay gaal dem na day rey boppam mu ne fekk weer incha allah ñu ngi jëm tànn koo xam ne moom la ñuy dénk suñuy réew kon lan la ñuy dénkaane dénkaane bu jiitu mooy ki taxaw di laaj réew mi mbaa yëg nga ne am nga kattanam am nga man-manam am nga taxawaayam am nga sellalam be doo gënale dara li nga laaj mooy réew mi kon foog nga yëg ne kon réew mi nga laaj ba ñu dal di la ko jox nga xam ne joxuñu la ko ngir sa dom joxuñu la ko ngir sa soxna joxuñu la ko ngir sa xarit joxuñu la ko ngir sa coppe joxuñu la ko ngir ña nga doon mais dañ dal di la tan, ne jafe jafei, yi ci sa programme dinañ dajale suñu kàttan dajale suñu am-am dajale suñu kóolute wommatu boo ñu digalee ñu def bonyu terenyu bayi, ñu bàyyi ngir nga rëddal ñu rëdd boo xam ne buñ ci jaaree te farlu rek dinañ jëm ci jàmm kon ki ñuy jox réew mi xam ne ci tomb bii lañu ko joxee réew mi kon bu ñëwee yoree ko ci tomb boobu du ma samba du ma demba du góor du jigéen du moodu du biraan ku nekk kartam bi la am te jox na la ko ngir mu am yaakaaram ngellawaay bul yekki ak yaakaaram te boo farloo taxaw ci anam bi borom bi subhana wa taala dina la ko jàppale kon loolu la ñuy dénk ki nga xam ne mu ngi laaj réew mi amma ki nga xam ne moom lañ koy laaj te mu war koo joxe na nga gëm ne sa carte bi nga yore moy sa pas-pas determine déterminer yow la nga fas te loolu mooy sa yool ëllëg itam yow mal qiyaama ndax ki nga tan la sakka am na lu tax nga tànn ko te mbokkoo warul tax bokk gox warul tax e jegewante warul tax gorowante warul tax warul tax lan mo waratah, a tax mooy compétence mu ngi nekk ci moom maandu mu ngi ci forlu ak nga ne bu ma ko wootelee ëllëg yawmal qiyaama yàlla ne man lu tax ma ne ko maandoom ak dëggoom ak compétence am loolu rek laa yaakaaroon nag waaye li ci biir xaw ma ko woon kon borom bi jéggal ma dinañ ko jéggal bi iznillah